mais naka lan mën a doomu pour bu bu génn bëgg def meeting wala dara benn ci Sénégal def manam marche ñun def marche c'est-à-dire c'est pas intelligent Mme euh, madame imaginez depuis l'histoire bépp bépp ki bu fi am manifestation ñu autoriser ko ciow du am ta d'ailleurs même les interdictions là les sous-préfets là préfet et sous-préfet mais euh, ko les citoyens lambda yi xamni buñ bëggee def manam marche ñun leen du ngeen ko fi defee dama la seen interdiction yi samonté wul ak yoon man maa la ko wax defal laa xoolal defal une euh, une revue jurisprudentielle toutes les décisions rendues de leen di condamner parce que condition yi xamni mom lañ lan ba moom moo war pour ñu interdire ko dañ koy salfaañe té lool war naa jeex ci réew mi parce que ñi ci gañu dafa bari ñi ci ñak seen bakken dafa bari ñi ñak d'ailleurs xolal bu bu ne dañuy def dañuy def dañuy def ma <laughs> ah, mi ngi bëgg a on a eu deux avocats donc